monsieur na Keita ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen remercier ci invitation bi ak occasion bi ngeen ma jox. am nañu mbégte dalal la si matinalu Rewmi FM tey nga nekkoon commissaire de police tey nga nekk coordonnateur mouvement xeexal Sénégal alors xeexal Sénégal nag baat bi rek doy na tegtal wante si yan ponk ngeen nara sumbu xeex bi. moo xeexal Sénégal d'abord dama koy coordonné fii mais vraiment il faut que ñuy reconnaître que ni ki sumb mouvement bi mooy Matar le Kagulaar ñu koy remercier ci initiative boobu bien que ñun ñëpp nag daf ñu fekk ñuy def dara lu méngoog loolu xamante wu mu xalaat ni ñi mu siin ñëpp fële te xamantewul ak ñoom te xam na ci ñoom malgré ça ñuy def lu mel noonu war na mën a ànd ak ñoom ñu teg lu mel nii pour xeexal Sénégal xeexal Sénégal nag daf di li nga xam ne ñun dañ ko teg pour dajale ay sénégalais yi nga xam ni ñoom ñëpp xalaat nañ ni réew mi fi mu toll dafa bi réew mi mënatul xàmmee boppam ci seetu suy seetu li muy gis fi mu taxaw du benn su waxee du dégg baatam su waatee du dégg baatam su defee yi tamit du gis li mu def pour pourquoi parce que dafa mel ni ku nu ñaas soppi sa kanam ba kenn mënatu la xàmmee ñu gis fi ay comportement yu mësul gis saaga gën fi neex a dégg way fenn gën fi neex a dégg wax dëgg kenn xàmmeetul autorité ñuy attaqué suñu ay institution di attaqué ay présidence ay police ay armée ay justice ay sëriñ di attaqué lépp te yow mi sa bopp soo waxee ñu xoqatal la wala ñu saaga la man ak sama morom ñoo ci am ñu ne nag il faut que ñu arrêté xoolaat lii seetaat lii ñuy def lan la nag centré wu nag ci position bi nga xam ne dañuy xam ni lii fi nekk suñu kanam teew naam moonu yëkkati mais lum ñu yëkkati yëkkati dañuy ànd ak suñu xel ni dañuy xeexal Sénégal suñuy xeexal Sénégal nag dañuy profiter ci occasion pour ni lii lépp li fi xew lu ci arrangé wul Sénégal dañ ko fiy diddi mu ngi mel ni lii ñu nekk nii te nit ñi léegi da nit sax day sañ ni man kenn du ma àtte ñuy xool di xalaat naan kii def na kat mais kenn du ko àtte ñuy xool naan kii def na mais kenn du dinañ ko tëj parce que moom kenn newul ci gannaawam mais kii kenn du ko tëj parce que dafa am doole yooyu yëpp di nekk ay bagage yu sew sewaan yi nga xam ni dafa tax xeexal Sénégal jóg pour que Sénégal yi seen bopp xam ni réew mi ñoom ñoo ko moom que su gasax ñu bari nag looloo tax ñu jàpp ne yéen Ousmane ko ak ñooñam ñoo leen yëkkati looy tontu ci loolu. ñun xam nga loolu soo ko ragalee rek da nga dul waxkatu dëgg parce que li tombé ci penc mi te fekkuñu ko fi ñun defuñu ko fi li tiital Sénégalais yi bokku nekk di wax ñun defuñu ko fi bu fekkoon ni leneen moo xew ba tiital Sénégalais yi te moom bokku ci xëy na yàlla dinañu xiir ñu fekk ci loolu parce que moom defuñu dara mais li muy def dafa def Sénégal dara. na ma la wax ni la ñu gis loolu nag ñu gis réew mi yàqu ñu gis fi ay xale dee mais pourquoi est-ce que kenn du duñu wax su ma jógul woon man ñëpp xam na suma sama tur xam kenn du ma wax yow de commissaire yow sàggan nga lu tax doo wax ci quatorze xale yii de fii ak trois yi de feneen te kenn mënul fexe ba ñi nga xam ni ñoom ñoo sooke loolu ñu tëj leen si ñi leen rey ñu tëj leen mais kenn du ma ko wax mais dès l'instant wu nga dëpp ci loolu danaan waaw diw moo tax te diw moomu ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg man taxuma xëy taxumaa gont mais Sénégal gii moo nu ñor maintenant nag su fekkee daf ci am ñu gis loolu ñun du éviter boobu combat te dañ koy porter dès le départ parce que bokk na ci li nga xam ni mu itteel Sénégalais yi ci ay conséquences am pas moo itteel Sénégalais parce que dañuy xeex diw diw moom moo xeex boppam parce que moo fi def lu tax ñëpp joxoñ ko moo fi def lu tax bés bu nekk ngeen dégg lu war a tax me ne serait-ce que fen yi lu war a tax ñu ni kii foo ñu arrêté ko parce que sinon sunu doom yi suñu njaboot yi ñun suñu bopp dañuy ne nekk ay nit yi nga xam ni dëgg du leen intéressé wax lu rafet du leen intéressé te ay la yéwén foofu ci camp boobu la jóge kenn defu ko fi man sama bopp dama koy vivre directement mën naa ko supporter parce que bis bu nekk ñu saaga ma bis bu nekk ñu def ma du n'importe quoi bis bu nekk ñu wax ma bis bu nekk ñu uspie ma mais damay xalaat ni li ma ci mën man parce que mën naa tontu am naa fu ma taxaw tontu ñeneen ñi nga xam ni dañu obligé noppi amuñu ko kon lu tax ñuy éviter ci débat bu mel nii di engagé xeex bi même en commençant par lui en commençant par ay dérivem suñu gisee leneen luñ ci mën a teg comme wax naa la ko tout à ñu mën ko ci teg daal di avancé pour que Sénégal gi am jàmm. d'accord euh, commissaire de police nga woon nga nekk tey coordonnateur mouvement xeexal Sénégal est-ce que mun nañ jàpp ne ñàkk kaaraange gi ci réew mi itam di ngeen ko song. Ah, xam soo ma waxee lu mel noonu da nga may déclencher ci benn aspect ñun dañuy soog a génne nii di seet nu ñuy taxawee ba dajalee lépp li nga xam ni xel mën na ci jot ni loolu war nañ ci mën a wax. te comme wax nga ma ko dama naan la waaw effectivement mën na nekk parce que problème day mën a am ci sécurité te dafa am ñu yàlla dénk ñu war a jox askan wi sécurité bis bu ñu gisee ni seen doxalin ak li xew ci réew mi mënoon na tane wala mënoon na gën mënoon na nekk neneen dina nu dégg bu baax a baax a baax a baax parce que sécurité bi defuñu ko pour seen bopp wala sunu bopp dañ ko def pour askan bi yépp te pexe askan bi leen ciy def donc effectivement vous avez raison dinañ xool à chaque fois que mu taxaw nan la ñuy duggee ci sujet yooyu pour wax ci lu méngoo def ci lu méngoo vocation wu xeexal Sénégal ni see xeexal Sénégal taxawee parce que duñu ay jàmbatkat duñu ay dénoncé kat comme certains du fi nekk c'est pas normal ay affaire dunu loolu ñun dañ di nit ñi nga xam ne dañuy taxaw di wax mbir yi di seet ay démarches yuñ ci ànde ak ñëpp ak ñëpp pour mu faju mën na am nag ñu jógee di def loolu keneen ak keneen ak keneen dinañu xelal dinañu wal yoon wala dina ñëw ànd ak ñun ba ñu gën am ay pexe yuñ ko faje mais retien que bis bu ñu gisee lu war a tax ñu dugg ci loolu pour faj incha allah dinañ ko def. ndax itam li askan wi dund tey mu métti loolu euh, euh, jafe-jafe ci wàllu koom-koom jafe-jafe yi social nekkinu nit ñi loolo itam ndax xeex Sénégal dana ci dana ci taxaw. xam nga boo seetee loolu moom mu ngi lëjj ci espace public bi mais ci anam yi nga xam ni. nit ñi ciy wax du ñu defar dañuy yàq liñ ciy wax du aw yoon parce que ku nekk da xëcc rek côté bi mu la gën a arrangé nga def ko da ngay dégg ay nit di wax ay wax yu rëy yi nga xam ni ca dëgg-dëgg kuy defar réew du wax lu mel noonu parce que non seulement du dëgg mais li la tax ngay wax leneen la lu dul wax nit ñi li nga xam ni moom la ñu war a xam ci problème bi ngay wax ñun ñu ni suñu ñëwee askan wi la ñuy waxal. seet li nga xam ni su ko xamee moom dina mën a gàddu boppam seet li nga xam ni su ko xamee moom dina mën a jàppale boppam dina mën a ànd ak opposition ak pouvoir pour ñu defar réew mi non pas taxaw fii mel ni ku ñu jox micro rek ngay foog ni yow yaa gën a xam ñëpp naan lii baaxul su ngeen ko defoon nii dina defee nii ñun gëm nañ ni lii c'est pas normal c'est pas normal taxu ñoo jóg dañuy defar ci biir loolu nag lépp li nga xam ni war nañ ko woon askan wi lépp li nga xam ni war nañ ko wax opposition ak pouvoir ci doxalin yi ci nunu war a taxawee ci digg penc mi débat bi sur les problématiques économiques doxalinu réew mi koom-koom bi nu muy demee lu tax ñun ñu amuñu lu tax ñu pauvre nan la ñuy fexee ba am ci ay solution suñu définiree ay piste solution dinañ ko jébbal nit ñi wax ci dinañ ci wax ak nit ñi wax ci mais du ñu fekk kenn ci pexe yi nga xam ni moom nga dugal pour sa noonu ñu ànd fekk ci loolu. naka ngeen nar a doxalee yan yoon ngeen nar aw justement ba xëy na xeexal déjà commencé na nii dañuy seet sunu Sénégal gi nan la taxawee ñu seet nan lañ ci war a waxal pour que ñu fekk ñu ci pénc mi ñu ànd ci defar bi dinañu wax ak. ci journaliste yi dinañ wax ak askan wi ñi nga xam ñoom la ñu jàkkaar lool pas nag pour dem rek ci ay plateau di wax di wax bëgg daal di ñibbi tëdd nelaw mais dinañu wàcc ci terrain bi dina dinañu organiser ay ndaje dinañu organiser ay ay comportement dinañu échanger ak ay kilifa dinañu dox ci dëkk bi wax ak administration wax ak euh, politiciens yi wax ak euh, euh, comment dirais-je encore sëriñ ci wax ak ñëpp ñi nga xam ne daal foog nañ ni ñoom am nañu baat ak kàddu ci réew mi pour que ñu seen ba fekk si ñu yun ci penc mi ba li nga xam ni ñun ñëpp d'accord nañ ci li baaxu fi ñu mën ko changer. alors ñu bëri nag am tiitaange si xëy na ñàkk dal ci réew mi euh, mën a aju ci ñetteelu mandat bi ñuy ruumandaat mu ñeel président Macky Sall yéen loola lan moo ci seen gis-gis ak seen taxawaay. ñun xam nga euh, loolu débat bi nga xam ni dafa toogagul lu tax toogagul c'est parce que. ñii dañu téye seen loxo bañ ci wax wax ju àgg wala bañ ci wax dara ñi bugg par force tey ñu def ko li nga xam ni moom mooy essentiel lu ñuy wax te élection bi mu ngi jëm deux mille vingt quatre bien que deux mille vingt jege si na ñun ñu ni ñun nekkuñu fi pour censurer wala pour def man ñiy waxal position bi pour l'instant dama ni su lu mel nii amee suñu taxawee ci xel te bañ a taxaw ci par parlo parparloo danaan lii du fi bees lii dafa nekk ci situation bu normal bi nga xam ni moom lay dund ci réew yépp muy activité bu normal bi nga xam ni dafa am ci réew di ñëw di ñëwaat loi ak règlement ñoo koy encadré c'est-à-dire loi ak règlement ñooy indi ay taxawin yi nga xam ni ci lañ koy gérer ba génn ci muy donc loi bi ñu bàyyi ko ak cëram ñi ñuy wax loi bi di juge ñu bàyyi leen ak seen cër naa du tere nag débat bi ak ni mu demee ku am sag farfarloo nga def ko suñu amee tamit beneen manière bu ñu contribuer ci pousser à ce que loolu am te jàmm rek am pourquoi parce que lu mu yàgg-yàgg lu mu métti métti métti yoon rek moo koy faj yoon rek mooy tax ñu mën a génn ci loolu kon ñu contribuer ci ñu respecter yoon respecter lépp xëy na nag nii ma waxee nii danga maa fekk ci yoon wax ma te jot naa ci wax naa nag naam ñeneen ñi nga xam ne bokk nañ ci euh, xeexal Sénégal mais xel bu rafet bi ma yaakaar ni moom laa am moom laa leen séddee ba mën a wax à place lii en attendant ñu gën a waxtaan ba xëy na sama réponse bu nekkee nii sax ma gën ko mën a argumenté gën ko mën a defar ba nga gën ma mën a comprendre. woo nit ñi ci wax dëgg ak xëy na indiwaat yenn jikkoy rafet yi moo leen yëkkati wante waxu mandat bi am na ñu ci gis ne xëy na wàllum éthique daf ci bokk ndax président dafa waxoon joxe kàddoom ba pare ku ne xam ne kàddu itam dafa am dafa am lu mu tekki tey ci suñu société yi ndax yaakaaroon ni aussi bu weesoo loi ak droit war nañu bàyyi xel loolu. loolu xam nga dafa am li nga xam ni dëgg la lay yi la wax la ci pénc bi suñu ne politicien dañ ni wax dañ ni digaate dañ démb dañ tey loolu du gan ci politique fii ak feneen ak feneen ak feneen donc suñu nekkee ci penc mi bugguñu indil taaru ci jëf taaru ci wax imposer benn conclusion ci benn sujet bu mel noonu dañ naan déedéet ñi ñëpp ay politiciens leen parce que am na yeneen thèmes yi nga xam ni bari na fi ñi nga xam ne doon nuy wax rek digoon na lii mais ñi fi fen di wax lu dul dëgg bis bu nekk di def leneen suñu convoqué éthique taaru jëf taaru wax dañu war a généraliser à ce moment dañuy am benn code de conduite bi nga xam ne day mel ni alxuraan mel ni euh, bible nga xam ni ku ci def lu mel noonu dañuy wut suñu àllaaxira yi àddina di teg fii ay daanu àllaaxira à ce moment di nga tiit di nga ragal dinga ko def mais su fekkee ci géopolitique bi la nanu dem ci mode de règlement question yi ci biir politique te bañ a jaxase lépp pour que ku nekk li nga xam ni moo lay arrangé nga sëf que sa noonu nga tekk daal ni lool muy règle bi te même règle boobu yow doo ko appliqué sa bopp alors ñu on est très prudent à côté de xeexal Sénégal pour ne pas ñu dugal ñu ci poobu su ñu faible foofu rek dañuy dugg ci parparloo te loolu ñun tax ñoo jóg. justement ndax Faye Sénégal ñoo xalaat xëy na euh, def ñoom tamit euh, dugg si ay élections am fu ñu bokk def politique comme comme ñëpp. ñun pour l'instant dugg ñu si benn élection bien que nag ku nekk si ñun am na camp politique bu mu bokk man ak keneen ak keneen ñoo si yem mais vocation wu xeexal Sénégal mooy xeexal Sénégal bien que nag ñun terewuñu. ni bis bu ñu gisee lu ñu mën a taxaw pour jàpp ci liggéeyu Sénégal jàpp ci defaru Sénégal mais dinañ ko def parce que Sénégal gi ñoo ko moom te ki lay wax naan la non non yow puisque yaa wax lii amoo droit def lii mu ngi def lu ko neex ak lu mu gëm ñun lu ñu xalaat rek ni rafet na ci sunuxal xal teer na te teeyul xel te nit ñi dinañ ci mën a déggoo ak ñun incha allah bi sunuy njëriñu Sénégal dinañ ko def. waaye fi mu ne nii àndu leen ak benn parti bokk leen ci dara politique. amuñu benn ñu benn parti man de am naa position wax naa la keneen am na position. mais position wu xeexal Sénégal mooy xeexal Sénégal du leneen. bu ngeen liggéey di xeexal Sénégal ci ñan ngeen nar a njëkk a dem. bu ñuy xeex ci nan la ñuy ñar a njëkk a dem ci ñuy jàkkaarloo ci Sénégal mais ñu ngi wax ak presse bi di wax ak askan bi déjà dinañu ubbi sunu yoon jubal ci ñeneen ñi nga xam ni ñoo ŋànk réew mi muy administration autorité yi muy kilifa yi nekk fii muy kilifa yi nekk ci booru diine bi muy ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci biir quartier yi muy xale yi muy mag yi muy ndaw yi ci circonstances yi nga xam ne ñun ñoo koy taxawal teewal ba mën a sunu ay jëf ñu mën ko fësal li nga xam ni moom mooy sunu participation ci jubbanti joyanti Sénégal bi ñu mën ko ni bëcc ci loxo askan wi incha allah bi dinañ def lépp loolu lii nag dama la ko esquisser rek parce que da nga ma dogale ci wax ma lu mel noonu fekk ñu ngi ci xalaat yi di dajale jumtukaay yi pour mën a teg plan yi ak projet yi nga xam ni moom lañ nar a doxal ci xeex bi parce que comme je di dit fasu ñu yéene toog ci ay rajo rek toog ci ay internet di wax dañuy boole wax ak jëf incha rabbi. jërëjëf euh, waaye leer na amoon nañu mbégte lool dalal la ci euh, plateau matinalu Rewmi FM euh, Cheikhna Cheikh Sadibou Keita ma fàttali ne commissaire de police nga woon yow yaay itam coordonnateur u mouvement xeexal Sénégal ngeen taxawal ko ci ayubés bi ñu génn ñu leen di ñaanal yàlla li ngeen di xeexal Sénégal te muy njëriñ yàlla na ci yàlla def barke jërëjëf. jërëjëf